abliyatul masaadir te gi masdar yi moom lay jàngale ci bii bunt mu tàmbalee fi'lu mutaaddi fa'lun qiyaasu masdaril muadda min di salaasatin ka radda radda wasnu fa'lin moo di qiyaasu masdaril mutaaddi ci fi'li bu fekkee min di salaasatin borom ñetti araf la tey mutaaddi fa'lun qiyaasu masdarama ni ki darabahu darban ak lu mel noonu bare na ni ki radda dellu na faala la radada moo doon cosaan raddahu raddan mutaaddi la ah wa faala laazimu baabuhu faal wa faila wa faila laazimu baabuhu faal ka faraxin wa ka jawan wa ka shalal dégg nga wa fa faila laazim xul nag fahima failay mutaaddi ni ki fahimahu fahimal masalata faila la waaye mutaaddi la kooku moom mutaaddi moom dugg na fee dégg nga faalun qiyaasu masdaril muadda min di salaasatin luy mutaaddi ci borom ñetti araf faalun qiyaasam la loola nag faala nga ca ni ki darabahu darban faila nga ci ni ki fahimahu fahman du dëgg ndax mutaaddi la aywa wa faila laazim nag kon faila juy mutaaddi wax nanu ni ma nga ca faala bu dee dee nga moom it ma nga ca du dëgg aywa faala moom même faam faalan dana doon masdaram même bu dul mutaaddi ni ki naama nawman maata mawtan yooyu duñu mut yooyu mut du laazim lañ waaye faala bil fatxi lañu moom faila bil kasriyat bu tee mat mutaaddi loolu mën na am ni nu wax ci fahman waaye ju laazim ji day baabuhu buntu xiyaasu masdaram mooy faalun ka faraxin ji firi mbég min farixa ci fi'lu salim boobu nga xam ni saxiix la wa ka jawan ak jawa ci fi'lu lafif boobu nga xam ni lafif la nga ni jawiya jawan jawa wajaun fil jaw fi ci cosaan wa ka shalalin ci shalila shalalan ci ci mudaaf boobu teewul yëpp faalan faraxin jawan shalal jawan xam nga ni dañu ko ragal li nga xam ne munta ñàkk a dégg nga xarfu ràgg bi fegg te fata dawlu ko jawiya jawaayan la bëggoon wax ni ki salalan waaye nag yaa gi mujj ci catal baat bi te ak fata dawlu ko moo ko andil ràgg jawaa wa faala lazimu mithlu qaada lahu fuulun bitiraadin ka gada faala jay lazim dëgg la mën na am faalan ndax li mu nekk sulaasi yu tey faala dégg nga ni ki waxoon nañu ko léegi ci naama naw man maata mawtan waaye nag dafa am yu ca xiyaasu lazim ba mislu qaada qaada nga ni quudan maanaam faala lazimu lahu fuulun bitiraadin wasnu fuulun qiyaasam mutarid la dégg nga mislu qaada quudan jalasa juluusan daxala duxuulan xaraja xurujan fuulun xare ka gada dégg nga ji firi xëy na xuduwan xuduwan aywa kon xuduwan loo cay xala def foog nga li daxaame nga ne xuduwan lu dëgg wa ala xuluwan xuluwan fuulan la de xuluwan ak xuduwan ah ñu ni faw faala bu dee lazim fuulun qiyaasu na ca mu ne déet maalam yakun feeg nekkul mustawjiban di aji war yelloo ma maalam yakun mustawjiban di aji yelloo faalan wala faalaanan dégg nga wala mu yelloo faalaanan aw maalam aw faalaan maanaam bu fekkee ni fiaalan la yelloo ni ki tey waa loo xam ne dafay tegtale bañ ak faraw ak yu deme na ñu ni sarada siraadan fiaalan jamaaxa jimaaxan yooyu kon fiaalan la yelloo ah maalam yakun mustawjiban faalan wala mu yelloo faalaanan li kawnihi yadullu ala dawaraani wa taqallubi ni ki daara dawaraanan wa haama hayamaanan dégg nga aw fuaalan wala mu yelloo fu aalan ndax dafa nekk lu tegtale jàngoro saala suaalan zakama zukaaman ah loolu dafay waral loolu maanaa yi lu fekkee ni bañ ak daw ak yooyu nga ni nafara nifaaran jamaxa jimaaxan sharada shiraadan su fekkee dafa tegtale wëlbatiku jallar bi ku jallar bi ko nga ne xala xalatil xidru bax na xala yaanan daara dawaraanan haama hayamaanan su ko defee lisim ji ci boppam jallar bi ku na ni nga xamee ni maanaam mi ngi ci jublu luy jallar bi ku la seetal munaasaba gi nekk ci waxu arab aywa wala fuaalan su fekkee jàngoro la daa un la ni ki jàngoro yu sëqat nga ni saala suaalan wala ba sa zakama maanaam soj na zukaam moom la ni fa awalun bu njëkk bi te mooy fi aalan dañu war kasra faaga lidimtinaain ñeel na boroomu bañ ni ki aba bañ na ibaan dégg nga charada faraw na chiradan wa saani ñaareel ba dégg nga te mooy fa alaan lilladi ñeel na la nga maanaam ma nga xam ne iqtada dafa sàkku taqalluban ak wëlbatiku ni ki xalayaanul xidri baxu kaw diir ndox mi jëla jël ba jël wala wëndeelu kuy dox daara dawaraanan liddaa ñeel na jàngoro liddaa i fuaalun ni ki misaal yi ma doon wax léegi aw fuaalun nag aw li sawtin baatit dana ko doon raxaa al bairu ruxaan baka sabiyu bukaan baxama shaatu buxaaman mooy même sawt wa chamala yóbbaale na alfailu moom làmb na yaar sayran mastar muy texe tegtale dox ni ki zamalal bairu zamilan rasama rasiman failan masdar la foofu wa sawtan dana tegtale baatit moom moom failan ni ki sahalal farasu sahilan nahaqal himaaru nahiqan awa fuulatun faalatun li faula ka sahula al amru wa zaydun jazula nee na faula bi dammi moom masdaram ci qiyaas dana am fuulatan ni ki sahula amruna suhulatan wa sauba amru aadaina suubatan dégg nga faalatu nit dana ko laaj ni ki jazula jazalatan moom la ni ki sahula al amru suhulatan jazula zaydun maanaa doon ku yew ku correct jazula jazalatan wa zaydun jazula wa ma ata lu ci dikk nag ci masdar yi muxaalifan di wuuteeg li ma mada ñeel la passé woon kooku fa baabuhu maanaam baabu axdihi fa ngay jaar ban koo jàpp mooy naqlu anil arab kon dañ ko toxale ci arab noonu rek yuqtasaru ala samaay wala yuqaasu alayhi ni ki ka suxtin ji firi ñàkk kontaan ci dara wa ridan safaan ba kontaan ca suxtu wala dañ ko firee sànje di ko firee léeg-léeg nga dégg ko firee mooy lu la naqari lu la naqari da rida mooy neex lu la neex saxita ak radiya fayla bil kasri lazim la kon fuulin ak fialun du ca qiyaas waaye nag ñoon lañ ko déggee lii qiyaas dégg nañu ko ci saxita saxita suxtan du qiyaas waaye saxita hu saxatan kooku xiyaas la te dégg nañu saxat it radiya nag dégguñu ci la doon xiyaas mooy radan ni ki jawiya jawan waaye ridan fialun lañ ci dégg fialun ridan wa gayru di thalathatin maqiisu masdarihi ka quddiya taqdiisu wa zakkihi taskiyatan wa ajmila ijmala man tajammulan tajammala واستعذ استعاذة ثم أقم إقامة وغالبا ذا لازم مني وغير ذي ثلاثة لدو البروم نيت أرف دينغ أه تامبلي تي رباعي جمكو كوكو مقيس مصدره نانا لنو خياس تي مصدرم كوكا موي لو ملني قدس فعل بالكسر بو فكي دفا ويرك مج kooku tafilan la laaj ni ki quddisa taqdisan bajjalahu tabjilan karramahu takriman ni ki quddisa seddaleef na sellaleef na taqdisan wa bu fekkee ni faala ba mu'tallu laam la tafilan la ba tey illa annahu dégg nga yu baddalu min al yaa i haa dégg nga haa at tanis zakkihi sellal ko tazkiyatan tazkiyan la waroon a wax waaye benn yaa bi la ñu xasaf watte ko haa ut tanis yani tazkiyatan loolu moo xiyaasu ci bu dee mu attalu laam amma mu mu fekkoon ni ñu ñu bàyyi ko ci ci tafilanam ju kenn deful noonu chaaz la dana am ci wax arab tuuti naka noonu taskiyatan ñu jox ko koo xam ne moom fi'lu salim la woon xaraf yëpp dafa wér ni ki zakkara tazkiratan ah bassara tabsiratan yooyu dégg nañu la de wa tabsirata xam nga am na ak tazkirata waaye leen du ci dara du ci xiyaasu arabiya bi nag ñàkk a doon xiyaas nag jotewul ak fas ñàkk a doon fasaaxa dara dara déedéet am na baat boo xam ne la dul xiyaas moo moo fasaaxa xataa yaxsibu dégg nga wal kasru afsaxu loolu ngeen jàngoon yaxsibu moom du xiyaas charge la waaye moo gën a fasaaxa yaxsabu de te yaxsabooy xiyaas nag yépp ci riwaaya jàngu alquran la lépp wér na ci jàng riwaaya alquran xam ngeen wa ajmil afala ifaalan ajmala rafetal na ijmaalan ah ijmaal danañ ko waxee ci maanaa rafetal rek daal bi maanaa mbir nga nekk ca jaadul ko bañ ko jéggil dayo ndax loo jéggi da dayo rafetatul loolu moom duñ ko wax ijmaal ijmaala man rafetalu koo xam ne tajàmmula dafay rafetlu tajàmmulan ak rafetlu tafaala ak tafaulan tajàmmala tajàmmulan ah afala ifaalan ajmala ijmaalan mu andi yëpp wastaiz istiaazatan istafala itam istifaalan mooy xiyaasam su dee dafa ragg ayin ah dana mujj ci iftiaalatan du dëgg ndax bu dee ayin ga dafa ragg istaiz muslul istiaazatan lu doon cosaanam istiwaazan ndax istaaza istawaza moo ca cosaanoon bu fataag waaw ga la ñu jox ayin ga du dëgg istawaza moo doon cosaan ñu ne istaaza amma léeg-léeg am ca bu ñu wéral dégguloo istahwaza alayhim sheytaan waxul ni istaaza istahaza ni mu nee istaaza te ñoo bokk tasrif waaye booba arab bàyyi na ko mun istawaza istahwaza su ko defee tasrifu feel ba lépp tasxiix ga ca lay continuer istahwasa yastahwizu istihwaazan waaye istaada moom istawaza moo doon cosaan ñu ràggal ko ca feelu maat ba dindi fata waaw gi jox ayin ngay waaw nga soppi ko alif nga ni istaada ñu continuer ci bu mostar ma dikkee sax istiwaazan istafala istifala istiwaazan ñu dindi fataag waaw ga jox ayin gu sukkoon gi waaw nga soppi ko alif fekkoon fi alifu masdar yaari alif yi daje kenn du leen mën a tudd yaari alif yi tegaloo nekk pexe alif bala nga koo mën tudd fata dawlu ko te alif gu njëkk gi alif kenn mënu ko laalale xaraka ñu xasaf genn alif ga bañ kasara nag ñu remplacé ko haa u tanis ca mujj summa aqim topp saxal iqaamatan kooku afala la aqwama moo doon cosaan min qaama yaquum iqaamatan iqwaaman moo doon cosaanam ñu toxal fatawaa ga jox xaaf ga waaw ga soppi ko alif yaari alif daje fa ñu xasaf genn ga soppi ngir iqaam mu ni nag wal du dëng mu ni wa xaaliban zatta lasim za bii di ifaalan ah bu dee laj waf boo xam ne dañu ko soppil alifam nga xawtaani xaaliban li ëpp lazima day taqoo taa xawtaani gi ba tax na même boo ko doon laaf li bare wa iqamatu salaati waaye nag xayrul xaalib mooy ñu xadaf taaga wa iqaami salaati wa itaai zakaati waaye nag xadaf taagi te laaful day o naadirul wuqoo la ci waxi arab aqaama iqaamatan du ñu ne iqaaman wa shadda anaara inaaran loolu néew na am wa maa yelil axiru mudda waftaha makasim tilwi mala makasi tilwi saani mi maftutiha bi hamsi waslin kastafa nee na lépp loo xam ne hamsak waslu la tàmbalee wala yakunu illa xumaasiyan aw sudaasiyan kooku masdaram ma ngi ame ci lii ñaari jëf yi danga ko ca def tàmbalee ko maanaam kasraal ñetteel ba moo topp ci xarafu ñaareel wi niki taa ci istafala ñaareel baat la jëkk mujj ga andil alif goo ko xëcc alif ci fata lay juddoo yaari jëf yooyu soo ko soppee ci siixatul maadi mu soppi ko siixatul mudaari ba xumaas yi yaag sudaas yi jeex lépp lu ci am xam sa waslu noonu dégg nga ah ah dama juum masdar laa wax de masdar ba ah masdar ba yaari jëf ngay jëf ca maadi ga mu soppi ku masdar eh, da ngay kasra xarafu ñetteel wi xam sa waslu gi mu ngi woon ci feelu maat ba Uh, nga dikk ci nag daal di ca dolli léegi ba nga ko bëggee soppi nga kasra ñetteel ba istaf ala taa gi dafa fataa woon tey nga ni isti aywa sukkoonu faa gi ma ngi fi woon fataag ayin gi ma ngi fi woon nga dolli alif la jëkk mu jëfu ñaareel jàngoog istifaal muy lan masdar ay ixtasama ixtisaam yaari jëf yooyu if an lala if in laal yaari jëf yooyu iq an sasal bairu iq in saasan ma kasri tilwi ma la xiiru ma ma kasri tilwi saani ànd ak kasra la topp ci xarafu ñaareel maanaam kasra ñetteel loolu mim maftutiha bi xam si wasli loolu ci bépp feel bu ñu tàmbalee xam sag waslu xumaasi yu lay doon nag mbaa sudaasi ni ki istafa tànn na iftaala xumaasi yu la woon waaye xam nga ni taaw iftaala bu bu fekkee saada ko jiitu dañu koy soppi xarafu mus mutabaq mustaalib comme bu mel na saat lay gën mën déggoon nga ne istafa mooy gën a yomb nga ne istafa boo ko bëggee wax sa gémmiñ sax sonn istafa yaa nga jóge ca kaw bëgg a wàcc ci suuf benn istafa seetoo ni ma ko wax boo ko jéemee da nga gis ni sa ngaam yi di def de waaye soo ko defee taane istafa mu yomb ñu ànd ci littibaq ak listiala wa dumma ma yarbau nga ni istifaan wa dumma ma yarbau mi fi amsali qad talam lana mu junj nag bi nga xam ne feelu maat ba kat benn taxyir nga cay def benn jëf rek nga cay def daal di am masdar bu dee tafaala la ak lu niroog moom dégg nga ni ki tafaala tafaala tafaala la feelu maat ba benn jëf nga cay def da xarafu ñeenteel wa ngay dem daam ko rek génn ca am masdar tafaala nga ne tafaula u rek na nga daam maayar ba ola xaraf wa ñeenteel ci am fii amsaali qad talam lama ci ay misaali talam lama dajaloona kooku tafaala la la lu mel na moom nag mooy tafaala ni ki taxaasama tadaaraba wala tafaala ni ki taallama benn damm njeen ñeenteel bi boo ko defee rek muy masdar talam lu man taalluman tadaaruban dégg nga ficlaalu naw faclalatun li faclalaa li faclalaa waj'al maqiisan thaniyan laa awala ficlaalun wala faclalatun yëpp li faclala ñeel nañu faclala yaari masdar qiyaas la nee na fii ci téere bii de yëpp qiyaas la leen fi def dégg nga déedéet ca laamiya fii nag benn bi la def faalala faalalatun la ni mooy qiyaas fiilaalun moom du qiyaas waaye ca laami yee ñaar yëpp la boole bu ñu xamoon téere bu ibnu malik mujj taalif laamiyetu la faal wala bii bu mu ci mujj taalif bu ñu ko xamoon xam ni loola la mujj wàlle ku jëm loolaay mazhabam lu jëkk li génn na ci nee na fiilaalun dégg nga ñeel faalala daxraja nga ni dixraajan wala faalalatan nga ni daxrajatan ñeel nañu fa alala yooyu yaar waj al defal nag awalan aji jëkk feel dégg nga saaniyan aji ñaareel te mooy fa alalatun def ko maqiisan muy lu ñu xiyaas laa awala du jégéeni bu jëkk bay feelaal kooku samaa yu la nee na loolu la wax ci téere bii de laamiya nag ñoom ñaar ñëpp la fa itlaaq ci xiyaas li faala al fiaalu wal mufaala wa gayru ma marra samaau aadala li faala ñeel na faala moom yaari masdar qiyaas fiaalan wala mufaalatan daaraba diraaban wa mudaarabatan dégg nga su ko defee da diraaban mooy masdar xaqiqa mudaarabatan ismu masdar la maazida fi awalihi miimun ah astafura astafura astafura mim bi mim bi bu fekkee defante lay tegtale ba tey kon masdar la mi da xam nga dafee dafa ni mimun li kilmati hal israaku maa qubila fii nag maa fuhima kii dégg nañ mu faalatu defante la kon kay masdar la moom yaari xiyaas la wa xayru ma marra lu dul li passé ci nu di ko wax ci ay masdar ci xiyaas lu dul li passé asamaa u dégg naqlu anil arab rek aadalahoo dellu na jëm ci loolu aadalahoo nag yaxtamil yaxtamilu ne aadalahoo min al muaadalati kon asamaa u dégg aadalahoo yem naag moom kon sama ayu la wala déedéet ñaari baat la aada feelu maat la lahoo jaar ak majuróor ju ci aju nga ne asamaa u toxale ci arab lu dul li passé day asamaa u toxale ci arab aada dellu na lahoo jëm ci sama u boobu aada dellu na mu moom loola lahoo jëm ci sama faqad jara asifatu ala gayri man hiya la wa faalatun li marratin ka jalsa wa fialatun li hayatin ka jilsa nee na faalatun nag wasnu faalatun naka darbatin kooku masdar la moo xam ne xiyaas la li marratin ñeelu marra ci sulaasi yi darabahu darbatan benn door ka ka dar ka jalsati ni ki benn toog boo doon andi masdaru am julus ngay wax waaye masdar al muraadu bihi waaxida nga def ko fa wa fi'latun bil kasri nag li hayatin ñeel na ak aw melo aw nekk aw nekkin aw defin aw lekkin aw dóorin aw warin xasanul rikbati nu ku jekk warinu fas xasanul jilsati ku rafet toogin la xataa xasanul iklati ka jilsati ji firi aw toogin wa gayru di thalathati tal marra wa shadda fihi hayatun kal ximra wa gayru di thalathati lu dul boroom ñetti araf nag al marratu wenn yoonam soo ko bëggee bi taayi taanis nga cay jokk dégg nga waaye ca sart ya lam lam ya ba waxoon na fekk lam yubna alayhi masdaru thulathi dégg nga walam yaati iwadan ni ki taagi ci idatin waaye kooku sax sulaasi yi nun lu dul sulaasi dégg nga waaye nag haysu lam yubna alayhi binyatul kalimati de dégg nga te it nekkul shaad ni ki qushariratan ah su ko defee almarratu su istax istaxrajtuhu istixrajan nga moo kon boobu fiyan du sulaasi nga bëgg ca mar rek nga ni istaxrajtuhu istixraaja tan benn génnee laa ko mos a génne wa shadd génn na qiyaas fii ci ludul borom ñetti araf fi'latu juy tegtale hay'a kal ximrati ni ki ar musóoru yin min ixtamaratil mar'atu ximratan xasanatan ah kooku kay moom du qiyaas nag ndaxte lu ëpp sulaasi yu moom pexe la ñu koy defale hay'a pexe la ñu koy defe mar bi dikri waxidatin tabdo li man aqala bu fekkee ni hay ala ba tey nga ni def bil wasfi wala bil idaafati boo ne rahimahoo dégg nga rahmatal ummi rahmatu dafa amoon taajoo xam ne mabniyan alayhi almasdaru al aam kooku waa mënatul am fi'la ju hay a ma ne surtout la wax rahimahoo rihmatan shadida déedéet waaye mën nga koo defal hay a ci laafe ko mu mu tegtale ban xeetu rahma nga ne rahmatal ummi ah wala bil wasf rahimahu rahmatan shadidatan asmaa alfaacilina walmafcuulina washifaati almushabahati biha mushbihati biha abniya abniyatu asmaa alfaacilina ay binaa mooy siiqatu mooy wasnul kalima la ñuy wax binyatul kalima wala siiqatul kalima abniyatu asmail failina ay siixa wala ay tëggi ismu fail yi fi'l bu ne ismu failam la mu war doon wal mafulina ak ismu maful yi wa sifatil mushba mushbihati biha ak sifa yi ñu yi niroon teeg ismu fail ci mënees koo tasniya mënees koo jam'o mënees koo def leneen yooyu sifa mushbiha dana la wax ci biir mooy nan la mu mel ndax ismu fail danañu ko tëgg ci fi'li mutaaddi di ko tëgg ci fi'li laasim sifatu mushbiha nag ci ci laasim rek la ñu koy tëgg te xaadir lay deen mënut a doon lil maadi déedéet wala lil mustaqbal sifatu mushbiha léegi la rek ismu faayil mën na jëm démb mën na jëm tey mën na jëm ëllëg te it ci danañu ko tëgg ci mutaaddi danañu ko tëgg ci laasim sifa mushbiha na nag boo bo li la li ñu lay wane ni moom ismu du du ismu faayil sifa mushbiha la sifa su niroog ismu faayil la moo tax ñu di ko wax mushbiha aji niru moom ci laasim danañ wax ci biir bunt bi wa sawquha min laasimin li xaadiri sataru bayt la ci bunt bi da nga ko jot mu ne nag mu jëkkee ismu faayil ka faailin so isma faailin ida min di salaasatin yakunu ka xaza mu ni ismu faailin suxtagal isma faailin ka faailin mbir mu mel ni wasnu faailin ida yakunu bu dee day nekk min di salaasatin ci borom ñetti xaraf ni ki xaza wal na ndo- almaa u ndox ma dégg nga danañu wax itam xaza boobu nag su dee lazim nee na xaza dana firi wal na almaa u ndox ma maanaam saala danañu ne xaza sabiya bi laban dundal na xale ba xazaahu yaxduhu maanaam dundale na ko bi labani ca soow ma mooy rabaahu fa huwa xaasin xaasin kon ngay wax daal wa huwa qalilun fi faultu wasnu failin lu néew la ci faula bi dam comme ni mu ko waxee woon ci lamiya waaye lu mel ne aaxiri nag faajiri nag faarihin ah dégg nañu ko ca ka aaxirin wa faarihin wa faajiri faruha alfarasu fa huwa faarihun aquratil mar'atu fa hiya aaqirun ah yooyu dégg nañu ko waaye qalilun la ci faula bi dam dégg nga faala bil kasri mutaaddi wala laasim yëpp mën naa ci am daraba fa huwa daaribun jalasaag naama fa huwa jaalisun wa naimun yooyu laasim lañ aywa fayla bil kasri bu dee mutaaddi rakibal farasa fa huwa raakibun bu dee laasim nag yeneen wasnu la war a am failin ak afaloog faalaanu yooyu moom kon xiyaas la ca dégg nga mu ni qalilun fi fa fi fa faultu wala faala gayra muaddan faala judul mutaaddi am na ca waaye nag ci faalay mutaaddi la bare bal déet qiyaasuhu fi faultu wa fail wa faila laa wax faila laa wax gayra muaddan lu dul mutaaddi faal fa faila juy laazim kon qiyaasuhu failun wala afalu wala faalaanu mooy yett yi kat failun wa afalun faalaanu naxwu ashirin min ashira maanaam réylu na ba réew mooy achar achar mooy faraxu jiddan wala